cher gentenaire yu enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook le temps mooy yéenekaay bi desuwaat ci révélation yu rëy yi nga xamante président Ousmane Sonko def na ko ni démb yéenekaay bi ne ay magguy financière yoo xamante ni nii Sénégal gii fi mu nii ci la nekk lépp président Ousmane Sonko dellusiwaat na ci tey xamle ne suñu gendarmerie nationale laa la wax fa ñu nekkoon ca centre ville bu Dakar dañ leen fa du quotidien di ko dëggal la président Ousmane Sonko ak tourné ne mekk tuuram bi nga xamante ni ki tey ji mu ngi jëm ci département bu Tivaouane plainte yi mu teg ci ndodd procureur de la République moom président Ousmane Sonko dellusiwaat na ci tey xamle ne dëgg la Ismaïla Madior Fall moom ci boppam moo war a joxe ndigal ngir Serigne Bassirou Gueye moom ci boppam daal wuy ji yoon waaye nag na jàpp moom Ismaïla Madior Fall ne la daloon Téliko dong nag moo dal fi mu nii Serigne Bassirou Gueye na taf tafee dossier Téliko bii na ngeen fexe ba taf tafee ko sama plainte bi ci Serigne Bassirou Gueye léegi fa yéenekaay ne président Macky Sall moom ak xeex bi jaay nañu suuf si amoon ci Sénégal gi yëpp rawatina nag centre ville bu Dakar moom président Ousmane Sonko dellusiwaat ci 196 milliards yi séq famille Perez ak nguurug Sénégal gii suuf suñu leen jox ngir ñu tabax si président Sonko di xamle ne fii ak juróom fukki at laa la wax suuf suuf su famille Perez ñoom ci boppam ñoo ko moom te nag wax dëgg yàlla loi bi dafa leer daf na état Sénégal balaa muy joxe benn immeuble wala muy joxe suuf daf ko war a jaarale ci assemblée nationale kon nag coowal suuf si ñu ko ci assemblée l'exclusif yéeni kaay ne président Ousmane Sonko kay mu def ci

di kon nag moom Ousmane Sonko li ko war fi mu ni mu di wuy ji yoon le journal ne ki wuy ji woon yoon kay ba ñu dugal ko ci biir kaso bi moo di Pape Alé Niang yéeni bi ne gis nga dossier bii wallaay mënoon naa am fa mu commencé waaye suñu justice bi dañoo tëb étape ndax lii ñu ko jàppee tey jii du dëgg du yoon bu fekkee ne fësal dossier audition Ousmane Sonko bi kase la maanaam fa ñu waroon na njëkkee moo di woolu Ousmane Sonko mi nga xam ne ba ñu ko convoqué

bii ñu daal di libéré Pape Alé Niang moom Mamadou Thior di xam la ci biir yéenekaay bi ne li Pape Alé Niang def bu ma yoroon document yi noonu lay def ndax am na loo xamante ni jéggi na état bu Sénégal sunu askan bii la ñortu loolu mooy rôle journaliste l'essentiel kay mooy mu bañ a créer waaye lépp lu mu wax moom Pape Alé Niang dëgg la moom Mamadou Thior di xam la ci biir yéenekaay bi ne arrestation bii ñu def Pape Alé laa la wax dara ci ñun presse bi nag waxtaan moom journaliste bii nag presse nationale bi ñëpp taxaw nañu pour jàppale ko te altine bii ñu jëm nag ci la ñuy commencé bi boole ko ki ay bandeau ay bannière ay spot ak ay marche yoo xamante ni ko accéléré ci biir réew mi yéenekaay bi ne vendredi bii jëm muy première marche bi ñuy jagleel Pape Alé Niang ay avocat nag ñu ngi xam ci biir yéenekaay bi ne transfert bii ñu ko def ci Sébikotane dana indi jafe-jafe lool nag suñu ñu soree kay fi mu nii mu

boole kook nag yokkal ko mandaam bii mu amoon fédération sénégalaise de football ne ko nag benn mission dong nga am ca coupe du monde ba moo di fexe ba def coupe du monde bu baax en tout cas ci wet gi numéro 2 FIFA bii di Fatma Samoura mu ngi am yaakaar loolu nag Sadio Mané mi participer ci coupe du monde bi ñu jëm yéenekaay bi dellusiwaat ci gaañu-gaañu bi nga xamante ni suñu joueur international bii am na ko ne famille dreetam laa la wax a ci yaakaaruk Sénégal gi nga xamante ni ci équipe nationale bi ci moom la dépendre moom Sadio ci ànd ak Aliou rek dugal na ci lu tolloog ñaar fukki bi ak juróom-ñaar def 15 yu baax yoo xamante ni moo tax ñu dugal niki ji nag ci àjjuma ji ci la xaar Aliou mi mu fasal liste 26 yi ñuy xaar nag ci coupe du monde bii résultat yu baax la libération yéeni kaay moom desuwaat ci musiba ba bokkumba nga am ci benn daara internat bu nekk ci diwaanu xamal ni waa ji sant Sow amul lu dul fukki at ak ñaar mu ngi ca biir daara moo doon fitnaal xale bi dóor ko dóor yi métti ba xale bi ne jàdd jàdd dara yëngatootul mu jàpp na dee na daal di gas nag daat koy suul de un suul ba mu ko suul baaxul ñaareel bi moo di ndekete xale bi deewul ba ñu demee nag ba gis bàmmeelu xale bii daat koy sulli deewoogutoon nag waaye na xale bi mu jéenaa dee yéenekaay bi def révélation bu rëy ci autopsie bi nga xamante ni ba ci kër waxuma laak nag ci biir daara ah nañu bàyyi fitnaal xale yi waaye mbokk ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah